wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allati allamta luqmaan alxikam faliyahab bilmustafa xayra sham asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji at ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral na yokk siyaar waa daara xikmatul yawmi yëpp fas yéene dikk ak yéen ci seen xikmatul yawmi bi ñu leen baaxoo andil bis mu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiixam seen mbokk Saliou Sy di leen ko defal ñoo ngi leen di joxe xikma bi fii ci mahad xikmatul yawmi li tarbiyatul islamiyya wa taalim markaz Cheikh Mouhamed Al Mourtada nekk Thiès te ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 712 44 71 ci ñi bëgg benn seeni doom wala ñu bëgg am ay leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas leen yeneen andil xikma bu amati solo ti mooy e, wéyale li nu tàmbale woon mooy diggante sëriñ si ak taalibe yi te démb ñu wa ci Euh, masuliya yi nga xam ne nii kilifa am na ko tey ñuy wax ci kilifa ci ñuy wax ci ci ci ci ci ci njaboot ci taalibe am kilifa dafa mënul la ñàkk am kilifa mënul la ñàkk mm, moo tax sëriñ Bay Jaxate daana misaal ki am kilifa ki amul kilifa mu mel ni bay wu ñuy sàmm ak rabu kenn sàmmul moo tax mu ne xam ngeen li tax rëbb ba jóg romb bay wa di wéy gis rab ba daal di fetal am sàmm gaa ko waral am sàmm tax bay wa deewul ñàkk a sàmm waral rab wee na jànjang te kenn neewul kiray lu waral sëriñ Malick Ba si ni daana wax ne ki am kilifa ki amul kilifa ñi ngi mel ni eh, eh, ñu ngi mi ngi mel ni jur gi nga xam ne ni dañoo am borom seen borom di leen sàmm di leen yendoo sàmm bu ngoonee mu dugal leen ci ab gédd tëj leen nee na ki amul kilifa mi ngi mel ni rab bi leen di wettalikoo nga xam ne day ànd ak ñoom di leen wettalikoo te bokkut ci ñoom bu guddee borom jur gi moom day jël ak juróom dugal ci ab géddam tëj moom mu nekk ci gannaaw gédd ba di leen wettalikoo nee na bu gaynde ñëwee guddi wala bukki wala luy fàdde moom ma moom lay fàdd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 ne ci man ak ne fi man bokkuñu ak pay yenn murid yi fi zaman ku ne ci boppam ñu balaak sa bopp dunyaa wu uxra nga fareek sa yëpp benn nga def lu baax ba dem jinaani wala nga def lu bon ba dem niiraani ku ne ci man man ne ci moom te yor ko àdduna ak laaxira far defar ko ràmm ko sàmm ko ba faf jofal ko jébbal ko njool maak mu faf dëkkoo ko ku ne fi man ngir koom yi ak saaxiir si ma jox la yooyee sama baatin delsi waxi sëñ Tuubaa moom la tënk noonu di ko woy moo tax sëñ Tuubaa it ah nee na day ruu yëpp suñu borom jox na ko waaye nag am na ci yoo xam ne nii eh, du leen yóbbaale fañ jëm ngir meluñu nañ war a mel moo tax sëñ Musaa Ka it woyaat waxi sëñ Tuubaa ne ruu yëpp man Cheikh Bamba jàpp naa leen fi waahirin wa baatinin moom naa leen am na ca nag ruu yooyu danaa leen dàkku am na ci yoo xam danaa leen dëkkoo am na ci yoo xam ne danaa leen sëlbu am na ci yoo xam ne danaa leen yëlbu am na ci yoo xam ne danaa leen yóbbu ba ma jëm ma boole leen ak rabbu kon nag yàlla nañ yàlla boole ci ña xam ne nii kat dana leen yóbbu ba fa mu jëm mu boole leen ak rabbu waaye nag lam waxoon rek dëbbule na ci fekk kuuru borom dëbbule na ci fekk kuuru boroom kon ñun luñ sàggan sàggan rek war nañoo jéem a góorlu ba doon doon lu taalibe yi sëriñ Tuubaa jéem koo mat ay taalibe ndax moom de ëpp nañu sëriñ waaye ñun nañ ko jéema mat ay taalibe sunu kem laahi kàttan buñ ko defee rek euh, sunu borom mën nañoo gàttandu ak ndimbalam yàlla na sunu borom dolli tawféex def ñu dëggi dëggi taalibe yi sëriñ Tuubaa ndax lam bëgg ci ñun kat du dara lu ñu jariñu àdduna jariñu itam àllaaxira ñoo ngi soññaat bu baax mbokki jullit yi ak mbokki taalibe ci liggéeyu daara Hikmatul yoon lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir te lépp nag ñu koy liggéeyalee Serigne Touba di ci woo bon volonté yëpp ñi nga xam ne nii lu baax rek moo leen yitteel ak fu ñu fi mën a ne di soññ waa jamhiya bi ñëpp waa association bi ñoom tamit ñu gën a euh, farlu ci liggéey bi ndax dafay doog a tàmbali ci liggéey bu yaatu la bu rëy rey waaye ñi nekk ci daara yi xikmatul yawmi yi tamit li tàmbalee xaajub benn ba xaajub ñeent ñoo ngi leen di soññaat ci carte membre yi ñu ñëw ci ak eh, addiya yi ñuy joxe parweer ndax lépp ci daara yi rek la jëm incha allah ak ñi bokkul sax ci daara yi tey dégg sunu kàddu te nga xam ne def lu baax yitteel na leen ñoo ngi leen ci tàllal loxo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 in uridu illa al islaah ma stataxtama tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh